gi jotee la ñuy lekk lekk bu ëpp. alors que ci ni ñu jot a jàng xam nañ ne que c'est le contraire waaye bu ñu poussé loolu yëpp am na tamit comportement nit ñi. ndax oustaz nit ñi dañuy tàng xol de. xam nga alfasad moom la arab yi tuddee yàq te yàlla dafa wax ci alxuraan ne bëgguma kuy ngeen di yàq ci kaw suuf. Mhm. bu ñuy lekk itam dafa ne mën ngeen a lekk ba suur ci yi dagan waaye nag bu leen lekk itam ba fër. Mhm. weeru koor occasion la woon pour ñu mën a économiser occasion la woon pour ñu mën a yaxanal. léegi nag gaa yi sant Diouf ak ñi sant Sène Samaas gi ak Ngom yooyu ñoom bu koor bu eh bu dogu jotee dañuy yaakaar ne dootuñu seen biir bi du fees ba suba mais yow mais yow ma wax démb ak li nga ma wax tey wute na de ndax démb nag ma nar naa sonn torop <laughs> nga ñëw ba fii tey nar a soppee wax ji. oustaz waaw déedéet boo mu ne eh. na sonn dana toll seen période. waaw maanaam suñu période nga xam ni conférence yeeg. ok non non moom waxuma coono boobu daf ma ne. daf ma ne affaire yi dina métti man ndax man. nga xam ni bi dañ ñu siy faral di ok eh. daanaka ci man xam nga daf ma ne <laughs> en tant que fayen dama dafa am nu ma mel donc yàlla dafa war a xool ñu ñu kii ñi. mu baal leen koor gi mu xool ñu awa kii mu ne leen yéen woor leen. <laughs> loolu waxuma ko <laughs> loolu mosuma ko wax damaa wax ne li am solo mooy eh, très bien li nga wax di laaj bu am am solo la koor gi liñ ciy dépensé mënoon naa gën a néew mm-hmm. te gis nga tubaab yi dañ dafa dama mas a lire benn livre benn tubaab wax ne boo xiifee bul dugg ci bitigu bonjour yi hmm. waxtu boo xiifee bul dugg ci bitig bi ñuy jaayee lu ñuy lekk parce que soo ci duggee lépp lu sa xel dem da koy daal di bëgg a jënd loolu moo dal doomu aadama yu bëree bëri ci wàllu koor gi c'est vrai que nag koor gi danañ ci occupé tuuti mais c'est pas dans ce à ce niveau là mm-hmm. mais dañuy nekk ci conférence yi comme ni ko sëñ bi mm-hmm. nekk ci tamit yenn yi nga xamee ne mooy tafsirul quraan yi ak yooyu cest à am na loo xëy ni bii dee xew ci koor gi lool mm. am na ñoo xëy ni dañuy te dund julli mukk moom daal non xiifal loolu xiifal lañ ko tuddee dund julli ñaareel bi sortie nocturne yi xam naa ne dana bëri ren ndax daa dugg ci vacances yi te daanaka eh, gars yi tàmm na ne vacances ba nga xëy nii du nu ko bàyyi bu nu ko bawee bëccëg gi fu nu ndogoo daa ñu yoxoo dem si géej ga. waa xam nga def ko sortie nocturne. waaw loolu it police war na see jóg dikk comme ni mu jógee tey ci ñoom Selbé Ndom. waaw xam nga <laughs> très bien <laughs> merci xam nga eh, yëpp damaa wax léegi bi may tàmbali ne lépp loo xam ne lii jullit bi war na koo def ci weeru koor gi bu ñu waree tamit noonu la war a continuer di ko def lu jiitu koor gi di am tamit loolu la war a continuer di ko def léegi nag problème bi am mooy sortie nocturne yooyu ngay wax wala nit ñi dañuy woorte dañuy julli dama ne ak naa féq la ndax damaa wax léegi ne je pèse très bien mes mots julli moo gën a fort fuuf fuuf fuuf weeru koor koor ci boppam weeru koor nag dafa am ay particularités yoo xam ni xëy na yeneen weer yi amuñu ko yàlla ci la wàcce alxuraanul karim mhm. loolu am solo la nga yàlla daf ci wàcc alxuraan am na nag yeneen événement laylatul xadri wax nañ ne ñu ngi koy làmbatu ci la nekk yooyu yëpp dafa nekk ci particularité yi nga xamee ne weer bi am na en tout cas ñu ñu xëy na bu ñu ko pour kii dañuy dund ak ay nit yu muuru nekk ak ñoom donc yenn principe yi sax yaakaar naa ñu bëri am nañ ko yaa ngi dégg mooy loolu mooy man yaakaar naa mooy li jiitu hmm. mooy maanaam nga am xol bi yéene bi di def lu normal di def lu di def lu wóor di muur sa yenn awra ba dem nag mm. daal di nag teg bii léegi nag dañuy ñaanal mm. waxaale waxaale na soxlaam. waxaale na soxlaam elle est intelligente parce que. elle a fait un résumé succinct et dans ce résumé là il a pu en tout cas s'en profiter pour donner. pour dire na xol bi jiital na xol na ba ba dëxëñaale ko ci biir comme on dit. non non non loolu wër la ci man en tout cas. ñun ustaas yi ay nante lan de ñun ustaas yi ay nante lan de. ma am loolu voilà léegi li ñaan rek mooy yal na yàlla def ci réew mi jàmm. yal na yàlla def weeru koor wi nuy tàbbi ñu dugg ci ak bismillahi rahmaani rahim àggale ko ak alhamdulilahi rabil alamin te yi tamit li nga wax léegi lu am solo la xol yi dañuy faral di jóg ndax euh, doomu aadama moom la yàlla bind ci ak matadi goo xam ne gi wolof nee na koo ne yaa bon moo la gën ndax boo ko gënoon doo ko ko wax kon dañu war a muñalante ci suñu biir surtout weer bi nga xam ne weeru njéggal la fukki fan yu nekk boo ko divisé par 3 bi raxma la bi dab euh, jot la ci ala ci safara et cetera et cetera nu fexe ba loolu ñu wéral ko ci réew mi kilifa yi fi nekk itam mooy soit borom kër gi ak mhm. njabootam ak télé bi yàlla jàppale leen ñi nga xam ne itam ñoom la yàlla dénk réew mi itam yàlla jàppale leen ñii muuru tamit yàlla yàlla xéer leen ci ba bu nu waree duñu duñu duñu duñu duñu mureeku wala samedi duñu mureeku wala bu samedi duñu mureeku <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf oustaz Maodo Faye voilà durant euh, ce mois béni de Ramadan la 2STV propose un programme spécial en tout cas avec des nafila avec des conf euh, ah, euh, parfait mhm. a un programme spécial comme tu l'as si bien dit ce programme là dafay dem ci ay 10 heures bu nekk dañuy def ay direct def naafila comme li nga wax guddi gu nekk itam mhm. am na ñuy def suukaru koor également yoon bi va continuer mhm. mais donc euh, tous les points yi nga xamee ne yitteel na doomu aadama bi ci koor gi parce que mhm. direct yi ñuy def dañuy ubbi antenne bi euh, question yi nga xam ne ñu wax ne ñu joxe ay question ngeen question ñu réponse xam ne ki am nga looy laaj ci koor gi soo ñu ko laajee ci kattanu yàlla lañ ci xam daañu la ko wax jërëjëf dañuy jàll